am na kaddu yu ma wax ak président léegi. ñu door ak na kaddu yu ma waxal léegi. loolu euh, rek laay waxaat tàmbalil ko Cheikh Bass mu àggaleel ma euh, loolu moo di euh, yoonam bii moo ko moom cant ak ngërëm rek la fekk ak ñaanal ko ak gën a yeesal sama dénkaan ak moom dénk gi ma ko dénk sëriñ bi maa ngi ko gën a yeesal sëriñ bi laa am tey moom la am moom la soxla am ëllëg moom la soxla am ci biir moom la soxla am ci bitti soxla wu loolu am sëñ Tuubaa du ma rek laa am eh, moom laa koy moom laay ubbeel sarbas ndax xam ne eh, ñëw gii lii moom moo ko moom bëggu ko kenn cant ak doom dong la fa fekk ndax taxawaay bi lam man ak lam mënul lépp def na ko ci ci ci ci defal ko sëñ Tuubaa te sequ fekk kenn dara ku dul sëñ Tuubaa dëgg kenn dara ku dul sëñ kon li muy def ginnaaw sëñ Tuubaa la ko defal la koy defal la koy liggéeyal kooku jaamu yàlla gu rëy la ndax sëñ Tuubaa soxlawul dara loolu borom lu koy defal yàlla nga ko defal kon noonu rek la demee kon nag saabas àggal leen ma la ci des waaw foofu foofu foofu foofu la toll. jërëjëfati Mbacke. di jégalu lool kàddu yi rek ndax ndigal ndax bu ma sëriñ bi yónnee faaw ma jottali li ma wax waaye daanaka sëriñ bi tënkal na boppam li mu bëggoon wax lépp. kon ñi ngi tàmbalee nuyoo bi ci président Macky Sall ci turu sëriñ bi ak mboolem délégation bi bépp di ko dara jàmm ci dëkk bi ci waajtaay bis bu bi nga xam ne bisu sëriñ Touba ni ma ko daa waxee waxtu wu ne mooy bis bi mu laxa saay woon di mu ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jànkoonteeg ay metti metti yu ëpp ba yàlla suñ borom at mu jot natt yu mu ko teg bu waxtu wa dellusiwaatee mu tegaat ko yu ko ëpp noonu la doon doxe ba ci at yu mujj ci njaarim 1919 wala 1920 sëriñ bi xëy woote doon sintu nattu yi yàlla suñ borom xamal ko ne ko jeex na ak pay ji des li fi àddunaa ngi dox saa su du si accès xéewal gu man ma dama koy dolliwaat te buñ demee ba ëllëg itam foofu ay bis amu fa waaye bu koo xam ne sama bis yi daana la itteel nga di ci taxaw buñ ci àggee lépp loo xam ne ay xéewal la yoo daa am bis baa def dolli koot kon bis bii bis la boo xam ne mooy suñu lépp mooy bisu Serigne Touba di bisub yoon wi kon Serigne bi nee na président mi lay nuyu bu baax xam naa wax ji du gudd ndax li mu wax nee na li ma waxoon ci làmbiñam wax na wax na ma ko démb waxaat na ma ko léegi nee na mi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci taxawaay bi. nee na ni la waxee bis bii nga xam ne bis la boo xam ne ëmbalul la ci dara lu may sant la ak ngërëm la ak ñaanal la ak yeesalaat lay dénk gi mu la dénkoon Sëriñ Tuubaa loolu nag doon na sëkk ndax sëriñ bi kat ku ko xam xam ne jëmm la joo xam ne nii ko kilifa gi waxee njiitu réew mi léegi. ne mën naa ne néew na yor dugg ba jeex sa sëriñ bi yónniwu ma ci ay itte waaye lenn lu ci ma sa doon soxlas ba fa amatu wala ak kon moom adduna sépp la teewal lislaam jëpp la nekkal waaye njabootu Sëriñ Tuubaa jëpp la nekkal kon nag nee na ngi lay sant di la gërëm ci mboolem taxawaay ak coono yooyu nga xam ne yaa ngi koy def di ko def ngir jëm bi Sëriñ Tuubaa waaye di ko def ngeen xam cofeel jëm la ëmbal àgg na ci boo wax ma ne waxuma la yërmaan waaye dama ko ñewantal daanaka bu lay wax soxla yi nit ñi sax day diis moom ndax nee na bu soñoon day àndeeg ci yoon noo xam ne du du du teg dara lu su bàyyi la nga ne ci liggéey waaye nag nee xam na ne kuy liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba am nag pay kon nag neen na mi ngi lay sant bu baax ci coono yi nga xam ne waxtu ne ni ko waxee jiitu na jataayam bii ngay am ci yaakaar akuk cofeel akuk jàpp. bi mu fi nekkee Serigne Touba ba nag itam saa suy soxla si nit ñi accès ak lum jafe-jafe jafe dañ ca teg sa bakkan fexe ba na ko sëriñ bëggee mu amee ko ni loolu nag nee na xam na ne ànd nga ak moom liggéey bi kon mi ngi lay ñaaral la Serigne Touba daali woon ne daa waxoon ne an na man waasala nii laa li xarajin dunyawin fa innahu yakunu min al muqarrabin wa an na man waasala li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu ma daama xayyan képp koo xam ne dangaa ñëw ci man te yàlla rek tax laa jukk nee na suñ borom daan la boole ci ñi ko gën a jege képp koo xam ne dangaa ñëw ci man ci adduna yi yàlla dana teel sa diiru dund kon nag nee na na nga delloo xel te rafet njort te xam ne li nga jëfar sëñ ci dëkk bi liggéeyee sëñ ba di ko kenn mësu ko def kon na sam daal ci li sa ndax nee na li jëf ci dëkk bi lépp gis na ko ndax trente bii nga xam ne doonoon na mébétum dëkk bi nga taxaw ci muy liggéey bu rëy boo xam ne ubbi nañ ko ci màggal gi ak yeneen yi nga xam ne tudd nga ko léegi mooy forage ñeent forage yi nga xam ne defaat nañ ko ci biir màggal gi lu wóotewut ak bokkut ak ñetti forage yi ñu defoon daaw ak assainissement bii nga xam ne ñu ngi ko door a tàmbali rawatina nag mbirum nab bii nga xam ne tiitaloon na ñëpp te jaaxal ñëpp keroog bala sëriñ bi jot ci sama kanam te wax na la yëpp ay soxla waaye bii mooy di ci jiitu ndax jaaxal na ñëpp ndax boo dem na bay li wër jumaa ju mu ci waaye fa sansa lu matu juróom benn weer koo xam état ni muy doxe xam ne yitte ak taxawaay bu mat sëkk nga ci def ba loolu mën a am kon nag ñaan yooyu yëpp boo ko boolee lépp loo xam ne ittee ma wala ittee njaboot gi wala mboolem ci dëkk yoon yi dëkk Serigne foo ci déggee taxaw ca ba def ci ndakaw jotam ñaan loolu mi ngi lay sant di la ci gërëm di la bàyyeeg Serigne Touba mi nga xam ne ni la ko waxee léegi xam na li nga jëf waxoon na noonu la ma ko waxoon ci làmmiñam xamalal ma président ne ko. dëkk bi jëflante wu fekk kenn ku du Sëriñ Tuubaa kon nag lépp lu mu daa jëfal Sëriñ Tuubaa ak yoon wi na ko jëme kanam yàlla def na nga waxal ko sa bopp nee na doo ci am dara lu may am ak ndam ak payug Sëriñ Tuubaa bu ëllëgee nee ngi lay sant la ñaan ci li sa kanam yaa ko xam yaa xam sa bëgg yàlla na la ci yàlla le defale ci tawfeex nga amee ko na ko aw suñu jotu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tubaarkàlla Mbacke leer na nañ président Baye Makhtar Mbow waaw waaw waaw waaw ak Pape Fall ami bitig ma nga ne la sa xarit Cheikh Abdou Khoudous Mbacké moom itam moom sëñ Cheikhu naam Cheikh Abdou Lahat toog leen toog leen Cheikh Abdou Lahad Jaxate moom itam tubaarkàlla taxawaayam ci Touba amin Mbacké amin amin Mbacké amin Mbacké amin ah président li nga dégg doy na sëkk de amin Mbacké li nga dégg doy na sëkk de amin Mbacké amin Mbacké amin Mbacké waaw soxna maam xari Mbacké moom Cheikh Amadou Mourtada waaw waaw amin amin amin ak soxna maam xari moom sëñ Moustapha mu Cheikh Modou Ba